asalaamaaleykum mbokk internet yi seetaan euh, CNG TV ñoo ngi leen di nuyu tey nag ñoo ngi toogal suñu benn euh, ndaanaan ñu koy wax Ouzin defe naa ne tey waa mbokk làmb xam nañ ko yàgg nay tëgg ay bés yu yu mag Ouzin ñoo ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ma frère di nuyu waa CNG TV di nuyu mbokk internet yëpp di la ziar di am kontaan ci dalal bi nga ma dalal nii. Mhm. di vraiment sori di bokk suñu mbokk amateurs yi mbokk axlu làmb yëpp suñu papa sëñ Modou Niang mi fi bàyyee ko barki démb ñu ngi koy jaale képp koo xamante ne yaa ngi ci làmb di wax ni suñu papa la woon suñu kilifa la suñu conseil la woon ci làmb dëgg yàlla keroog samdi bi ñu xëyee ma yëg nouvelle bi am naa lu ma metti trop parce que li tax mu métti ma mooy bi may yëg nouvelle bi fekk na ma daan préparer pour ñëw sonoriser ko ci làmbam bi ma gisee appelu ndooy sax loolu laa jàpp ne damay fàttali ndeke daf may daf may daf may daf may yëgal paa bi dem na kon sëñ Modou Niang mu nekkoon koo xamante ni kenn la ci làmb ñi ko seede bari na wax ci moom ci mbaax mbaaxam maanaam buñ ko doon wax tey duñ fi jóge mais dañuy ñaan yàlla suñu borom mi nga xamante ne moo ñu ko indiloon te moo ko yóbbu tamit yàlla suñu borom atte ko ci yërmandem yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe parce que wax dëgg yàlla papa la woon boo xamante vraiment man de xawma kan mais man en personne damay wax ni man ma ñàkk quoi parce que mm, yàgg naa ci làmb yàgguma ci mais sama waxtaan ak moom souvent mooy ni muy doxalee rek na ma doon conseillé mooy defal loo mën bu la kenn dugal ci détail bu la kenn dugal ci dañ lay wax dëgg yàlla dernier làmb bi mu mujjee tëgg fii wax dëgg fa yàlla man bu may fàttaliku sax dafay mel ni daf ma doon tàggu parce que ñëw na ba ci fi may sonoriser làmbam mu nuyu ma waxtaan ak man ne ma góor góorlul te moytu dugg ci coow maa ngi lay siiwur ne ma góorgóorlul ci làmb vraiment yooyu bi ma demee ba toog ba xam ni lii moom dëgg la image boobu moo ñëw ci man kon ñu ngi koy jaale bépp axlu làmb rawatina nag yéen waa CNG de lutte ci ci jiital Bira Sène ak équipe am yëpp ñu ngi leen koy jaale di ko jaale bépp mboolum jullit yàlla na ko yàlla yërëm amin mhm. waaw bu le loolu weesoo euh, Ouzin gis nañ ne am na looy waajal muy le 8 euh, mars gis nañ ne am na journée bu am solo boo xamante ni yaa ngi koy waajal journée boobu noo ko fas yéenee waajalee ak yéen mbër nga ci taxawal wa sant yàlla rek ñu ngi waajal le 8 mars incha allah fii ci arène nationale ci diggante Mbacke Faye ak Manji Manji saa waalo ak euh, Boy Gueye capitaine ak Dougar ki nga xamante ni tigoo xaritu yaayam ak Moustique 2 ak combat yeneen combat yu neex yoo xam ñi ngi ci ñu koy euh, ko daan koy def muy journée de la femme ma yàgg ko tëgg fii ci arène nationale di ko def drapeau madame le ministre Tall li ma koy waajalee rek mooy fexe ba def li nga xamante amateur yi dinañ kontaan ak lu làmb dinañ képp koo xamante ni ci production di suivre ay journée maanaam ñu xam ne daan def ci ambiance ci ci cosaan ci culture ci lépp loo xamante ni ñun am nañ def ko le 8 mars. waaw le 8 mars gis nañ ne yaa ngi am solo ci wàccaay bi fan ci toll ak lan nga fas def ci jour lan nga war nar a innover comme loo xamante ne nii nit ñi dañ ci teg seen bët. waaw li ñu nar a innover mooy le hui mars maanaam ku dégg xam ne journée de la femme la drapeau bi damaa am yéene rek di ko daw di ko di ko di ko tuddee madame la ministre nee na Fatoumata Tall bii nekk li nga xamante ne mooy euh, cinquième édition laay wax mais journée jigéen ñëpp la parce que am na yeneen quatre drapeaux yoo xam te ñi ngi fii yu bëree bëri bari ñoo xamante ni kenn ku ci nekk dañ ciy sargal sa yaay wala ñu ciy sargal ki nga xamante ni mooy jigéen parce que drapeau bi tey mën naa wax ni sama yaay laa koy sargalee parce que ñoom bu ñu amee benn journée ñoom bés yëpp sax seen bés la waaye bés bi da cee raw kon tey képp koo xamante ni jigéen nga rek dinañ fexe ba nga xamante ni ñoom seen xol dina sedd ci combat bi parce que lenn li nga xamante ni mooy surprise bi ma bëgg a def mooy kuy jigéen doo dagg la koy may gratuite mu nekk journée de la femme rawatina nag ñi nga xamante ni souvent dama leen gis ci stade bi ñuy daan seen doole muy jigéen ñi nga xamante ni ñi ngi faral di jaay di wut lu ñu am di yóbbu kër ga su ma leen dee xool dama leen xoolee comme sama sœur ñi ma mat yaay dama leen comme suma suma yaay kon ñoom rawatina sax ci journée boobu que ñoom gratuite la si ñoom parce que man en personne mosuma mosuma tëgg làmb sax di fayloo jaaykat ñëpp gratuite la woon si ñoom mais journée bi da cee raw su ma amee loo xamante ni dama leen koy dollil ci journée bi sax dama leen koy def mais kep koo xamante ni maanaam amatrice nga man journée boobu moom boo ñëwee gratuite ne doon ci yow incha allah. Hmm. macha allah kaddu yi solo kon ñu joxante rendez vous rek le 8 mars. Hmm. waaw <laughs> ñu ngi joxante rendez vous le 8 mars mais bala ma tëj damay remercier sama journée bi passé si ñaari combat yi ma tëggoon ci diggante caatu Dalifor ak caatu Limousine. xam nga ñoom ñi ngi leen ci remercier bu baax a baax ci li nga xamante ni def nañ ko le 18 janvier mu nekkoon mercredi ñooñu maa ngi leen di remercier di wax euh, kontaan naa ci ñoom ñoom ñëpp ci li nga xamante ni def nañ ko bon di wax ni euh, bala ma tëj tamit di gërëm kenn muy Bira ci liggéey bi muy liggéey ci li nga xamante ni mooy arène bi liggéey bi muy liggéey ci muy liggéey ci làmb parce tey boo nekkee njiit manam nga ibbi sa porte xàmmeewoo promoteur bu ndaw xamoo promoteur bu mag promoteur sax amul bu ndaw ak bu mag mais ci différence de combat yi nañuy waxee promoteur bu mag maanaam portam pour ñëpp la équipe am bi vraiment da ko ibbi pour ñëpp mën a am aspect ci moom lu la metti ci làmb nga ñëw nga waxtaan seeg moom ñu xool nuñ koy lijjantee kon kuy promoteur vraiment nañu bokk bokk équipe bi fi ñu doxal ji parce que làmb suñu métier la te ba pare dafa yor suñ teranga comme lu sa teranga fi mu nekkee nañu xool ñi ko yore parce que dama naan promoteur ak CNG ñaari structure yi mënul bàyyante la parce que mënoo tëgg lamb sans CNG CNG mënuñu organiser sans promoteur kon li war ñuy waxtaan di bokk li nga xamante ni journée ci ak di gërëm bu baax Bira Sène di ci teg ñaam bi Diop ak max ñi nga ñoo ëpp liñ fi nekk képp koo xamante ni ci membre CNG bi nga rek ñu ngi boole ñëpp di leen remercier di leen wax ni vraiment loolu laa amoon lu mu leen doon remercier ñoom di wax rendez vous ñëpp comme ni ma ko waxee fi sànq rek le 8 mars incha allah lépp lu ma mën ci ambiance dinaa ko def ak culture ak sargal jigéen ñi kon loolu laa amoon lu ma wax di sant bu baax surtout sama staff Ousin production di gërëm ñëpp. loolu am na solo Ousin mais naa la laaj benn question bala nga bala ñëw tëj mooy gis nañ ne. sanction yi teg mbëri quoi gars yi ñu ngi coow naan loolu jaaduwul ak yooyu noonu tey loolu loo ci mën a andil ci yenn kàddu ci sanction yooyu noonu. waa xam nga sanction yi ku deful dara kenn du la sanctionné il faut que mbër yi ak ménager yi maanaam ñu xam li seen CNG di tere ak li muy def man mii di wax ak dañ ma sanctionné woon mais bi ma xoolee liñ ma sanctionné maa ko def mais dama ñëw jéggalu liñ ma mën a jéggal ñu jéggal ma ko lu ma réglement règlement mënta jéggal ñoo xam règlement mën na ko jéggal il faut que nit ñi comprendre maanaam tey bi yow promoteur bi bu la mbër mi defee ci sa contrat ak yow maanaam amoo loo koy baal ci loolu parce que da nga da nga génn ci presse bi wax CNG de lutte lu ñu leen dénk la réglement maanaam amul mbër amul fa ngay signé contrat fañ lay ba ba ngay bëree lépp ci règlement la bu ñu respecté règlement yi man dama jàpp ni problème du am parce que gis nañu suñuy doyen mbër yi fi nekkoon bëre ba bàyyi bëre te mosuñu leen sanctionné parce que ñoom dañuy jël seen règlement di ko liir imaginel tey gis naa sax ma jox ci benn exemple combat yi passé fii Balla Gaye bi mu fiy bëree ak euh, nu mu tuddati euh, Boy Niang ñu toog fii ba vingt deux heures ci làmb ji war a jeex dix neuf heures bu sanction amee ñu ne kenn du gis nañ fi Zarko ak euh, nu ci tuddati adafas nga daan ñu daan nga jël saisi dajji arène baa nga préparation mystique ñu bind ko noir blanc jox la ne la bu mu minutes yaa ngi dégg nga dépassé plus de 50 minutes ñu sanctionné la nga ne kenn du la il faut que ñu respecté ñi nga ni mooy nit yi ñëw di di jënd di di di di parce que. imaginel tey ki ñëw 17 heures wala 16 heures ñëw ci làmb xoolal toog ba 22 heures est-ce que loolu xel nangu na ko du yoon yenn saa nga bër fii mbër moo xamante ni fi nañu nekk Leewtoo jëmale bu kenn xamul Leewtoo dafa tax promoteur fay leen Sokh ak marle li ñu def fi barki Demba Ndiaye ba ba suñu frère Makan wàcc ci géew bi di di di di di revendiquer li ñu wax du yoon kon loolu yëpp na ci nit ñi di bàyyi xel ku ñu sanctionné rek jàppal ne yow yaa def li tax ñu sanctionné la kon nañ ko éviter. nañu éviter sanctions yi bu baax a baax a baax surtout mbëri ah parce que ku deful dara kenn loo sanctionné man ñoom laay teg toor na leen ñu moytu bu baax a baax quoi waaw. jërëjëf kàddu gi am na solo kàddu gu mujj. waaw kàddu gu mujj waa di santaat rek ñëpp rek di santaat euh, képp koo xamante ni yaa ngi ci structure Ouzin Production ñi nga xamante ñi ngi may jàppale di sant kenn nag suma grand Moustapha Mbeng mais di sant ki nga xamante ni mooy Nene di sant ñoom job social ñi nga xamante ne ay partenaire Ouzin rek Babacar mi la ñoom assurance. Katerina ki nga xam te moom mooy King Kanji production Ceder xam nga ñooñ ñooñ ñëpp vraiment dañuy nekk di jàppale Ouzin kon ñooñu maa ngi leen di gërëm di leen sant ci jàppale bi ñuy jàppale Ouzin production voilà di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen sant nag yéen waa CNT CNG TV vraiment li ngeen def am na solo di dugg ci promoteurs yi mbëri yi di leen laaj seen xalaat ci làmb loolu ñu ngi leen ci remercier bu baax a baax merci. jërëjëf Ouzin. merci beaucoup. Let me Boutière